ku mu jara vingt mille euh, Malick Diouf te Jula. pardon pardon pardon silence si la euh, ñu ko ba jar. sama karam daf laa nduróog ku ñàkk fayda. dama laa nduróog ku tekk mu dara ci réew mi. est-ce que xam nga lan moo tax ma def sama technique tout. pour jubalee entre Macky Sall ak Ousmane Sonko. loolu sama yoon ne aussi. kon man su ma doxee ba jubaleen ñoom ñaar nga war a xam ne man dara laa ci réew mi. ma ne loolu sama yoon ne kon yow waroo maa mën jaaxal. dell na affaire laa lay xamal mën nga ma jox nga jox ma nga nekk ci tranquille mënoo ma jox takkala lam yi laay def. kooku ndoogal la biir biir gàtt bi man yi kooku ndoogal laal. amal mënoo ma jox. yow policier dong nga mais man civil bu xam sama bopp la civil bu doy war la xam li ma bëgg ak li ma bañ. d'accord looy bandi bandi lu maa la ko gën a bandi. tu sais bel et bien que ne yow li ngay jaay lépp ay fraude la. fraude man mi. xam nga ne li ngay jaay.